الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن هدى بهديهم إلى يوم الدين كجلتي jullit بني gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonentam bu tedd bi di bëgg ci yéen ndokkeel ci taxawaay bi daje bi nga xam ne suñ borom rekk ko waral te mbindeef lépp lu mu jëf la mu jëf ngir yàlla moo ci gën mooy li ci gën am solo bépp jaam boo xam ne yëg gi nga yëg sa teddug borom ak kàttanam ak man-manam ak yërmandeem ak xeewalam ci yow ak ci li la wër ak li la tiim loolu tax nga seqi benn jéego jëm ko foo jëm foo xam ne yaakaar nga ne da fa dolli koo ak dolli ko góodu rëccu la adduna ak àllaaxira sallallahu alayhi wa sallam dafa ne mboolem daje bu jullit ñi daje te fàttali wuñ fa yàlla julli fuñ ci yonent ca daje ba ak perte lay doon bis ba nga xamee ne jaam bi mu ngi waaj di jóge ci kër gi di dañ lépp lu fi nekk di dañ jaam bi waaj fas fi yéene jóge ñu di ko wan fépp fu jaaroon ak lépp lu mu defoon ak lépp lu mu fasoon ci xolam bërëb yooyu bok ci li gëna wayax woyex fi nun defe ne amul solo te moy bërepp bu nu tok daje fa ba jóge fa ku nekk dem fatali wun fa yàlla dolliku wun fa ci lenn bërepp yoy dana bok ci perte yi gëna metti boo xamné doom doomu bi dana ko joy dana ko nakarlu dana ko rëccu ndax nit ki bu fi jóge xam lépp lu mu sonne won ba am ko fi dana ko fi bàyyi keneen a koy jëriñu waaye du doon moom bu xam ni fu mu jëm rek lam fa dawal la fay fekk du fu fekk leneen bu fekkee ne bindeef mi def na xelam ci loolu bu fàttali ko léeg-léeg bañ koy fàtte ak dundam dana barkeel ëllëgam dana neex ndax waxuma gisu taxawaay ba ci pak bu leer bu tàlli ba jam yépp di daje ñu xëcc jant bi niñ koy faral di waxtaanee rek ba mu jege bopp yi lool yuur yi di xet ñi xuus ci seenu ñaq ñu jiitu bis booba dir bu yàgg nit ki dana ko tëdd ci bàmmeelam raay boobu mu tëdd ci bàmmeelam mën na neex mën na naqari mu ngi neex ci ku ko mësul woon a fàtte di ko fàttaliku di ci def sa xel mu ngi naqari ci ku ko fàtte rek def ci sa xel mbiri àdduna rek àdduna sax suñu borom bi mu ko bindee it dafay lu mu jublu mu am di wéy ba waxtu wam ko àppale namul muy kër goo xam ne day ràpp dara dootu fi nekk feek digg ba ñëwul loolu tax mu sant jaam yi nañu liggéey àdduna bi ngir nam ma ci àllaaxira liggéey liggéey àdduna yéene ji rek ci am solo boo dee tabaxal sa bopp kër nga yéene dëkk ci di ci jaamu yàlla boo fi jógee keneen ku ci dëkk keneen ku ndox ba agsi fi lu fi nekk ci xéewal ku ci xéewlu ci ndox mu muy naan ba ci ker muy taxawala lal bu muy toog nga yéene mu di jaamu yàlla mu doon ak jaamu yàlla saxaaba yi noonu lañ defoon dañoo liggéeyoon àdduna ngir am alaxira moo tax ñu xeexoon li tàmbalee Makka ba ci sunu géej gi ñu tuddee océan Atlantique xeex ngir dugal nit ñi ci lislaam xam ne ñi xamuñu ko te ñàkk koo xam gi daf leen di lor xam itam ne ñiy dox diggante nit ñi ak diine bañ ñu tuub yéefari Makka yi ñu ngi jàpp ci loxo yi nit ñu di leen xëcc jëme safara ñu bañ loolu am suñ borom sant leen ñu xare ñu dale foofu moom Espagne moom lu bari ci Italie moom lu bari ci France wal walbatiku dikk bu moom afrig du Nord walbatiku jublu penku ba ci réew yi nga xam ne yépp lislaam àgg na fa bari ci ñoo xam ne amoon nañu ay million yu def ko ci yàlla rek toog rek di xaar yàlla doyloo yàlla def ko muy seen alal di seen wërsëg di seen am-am di seen lépp jullit ñi noonu la ñu war a nekkee ci àdduna bu ko defee duñu rëcc lenn waxtu wu ñu deewee bañ ko fàtte nag ci la tàmbalee bañ a gi itam li koy waral mooy fàttaliku gu bari fàttaliku gu bari gi lu mel ne béréb yi ñu toog te li ñu fi tax a toog du dara lu ngir yàlla ak bi ak fu yaakaare lu baax buñ fi jógee dégg fi loo xam ne lu toll ne bën bënu pusa ci fàttaliku yàlla ci yëg kàttanam ci fàttaliku ëllëg jóge na ci jataay bi dugg ci sunu xol daanu ko gërëm waxtu wu ñuy génn àdduna daanu ko gërëm waxtu bu nekkee suñu bàmmeel daanu ko gërëm waxtu wu ñu dekkee jëm ca bis penc ba nag jaam lu gàtt lay nekk ci àdduna lu gàtt gàtt waxuma àjjana ku fa dem wala safaan ba nga xam ne doo fa jóge ba mukk waaye bar sax rek te diggante fi nit ki fi ko defee ci bàmmeel ba fa ñuy dekkee kenn xamul ñaata junni at la suñu borom rek moo ko xam tabaraka wa taala ndax neen laa taatiikumu illa baxtatam saa buy taxaw day bett nit ñi rek amul benn mandarga bu nu xamal ne ëllëg la saa di taxaw wala tey ci ngoon la saa di taxaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na dana fekk nit ñu wàcce piis di ko meetare duñu àggale gis ko tabax mbalkaam bay raax du àggale ñu ëf bufte bi ci diggante bi xam ngeen ne wax nañ ko ba tàyyi ci ay waxtaan li tax deewu bett ñu bari ragal ko dañu dul xam fu mu fekk sa xol tollu fa te yoxsha yamutul maru ala ma aasha alayhi wa aasha alayhi ala ma mata alayhi nit mu deewee buy dekki ca melo woowa lay dekkee réew mi nu nekk di senegal suñu boroom def fi lu mu deful fu bari ci réew yi jullit ñi boo fi jógee réewum jullit moo dem mu ci réew yi naar yi ci réew yi dañ làkkat li nga gis ci jàkk ci Sénégal doo ko gis ci benn lii daje ci mbooloo ci jàkk ju nekk ci Sénégal doo ko gis ci beneen réew ngëm gi ñu gëm ba képp ku ñu yaakaar ne am nga yàlla ñu xër ci yow attan laa jox seen lépp ngir jëmmi yàlla boo génnee Sénégal bala nga koo gisati daanaka doo ko gis te nag ah ñi fi nekk ñu du leen tuddee ay sëriñ maanaam ña fi nekkoon ci jamono yi weesu tënk nañu nit ñi ci lislaam ba leneen lu fi ñëwit woote leneen lu mu doon lu dul lislaam duñu la wuyu murid yi boo leen wooyee ci lu dul si Ahmadu duñu la faale tijaan yi boo leen wooyee jëme ci Alaaji Malik Abdullahi Ñasak ñi ci topp duñu la wuyu xaadir yi boo leen ci lu dul si Abdul Xaadir Jilaani Cheikh Saadibu ak ña ci des duñu la wuyu loolu nag nit yàlla yi la ko suñu boroom def ci ñoom ndax dañ ne wa inda zikri saalihiina tanzilu rahmatu gannaaw buñu leen dee waxtaan rek yërmande yàlla day wàcc suñu boroom moo def loolu ci ñoom boo seetee kattanu barke gi ñu donne ci yonent bi sallallahu alayhi wa gi ne ci ñoom moo tax nit ñi gëm leen tey ñu ko bépp xol bu war a texe xol boo xam ne boroom war na texe dana la gëmloo waaye yàlla boo ko weddee bu fekkee ne sëriñ bi mat na sëriñ nga ziyaar ko waxtaan ak moom boo seetloo sa bopp boo fa jógee da nga xam ne am na lu soppiku ci yow dañu ne sëriñ bu mat sëriñ boo ko ziyaaraa ba jóge fa ñeent fukki guddi daañu la ko baal ñu yëkkati xalim ak bàkkaar duñu la ko bindal lu koy waral toyal gi mu toyal sa xol ci yàlla mu des ci yow nga di ko fàttaliku balay wowati nga gisaat ko wala nga gis ku mel ne moom loolu bokkul ak baatin bi ndax sëriñ ñetti xeet la cheikhu taalim cheikhu tarbiya ak cheikhu tarqiya cheikh amad bamba radiallahu taala anhu wane na ko ci xikam xikmatu cheikh li nga xam ne nag mooy seenu bëgg laalal leen aslëf ci maam Cheikh Ahmadul Kabir bëgg ngeen ko lool bëgg ngeen ko lool waaye nag mën naa tàmbalee ne leen ci du ku ñuy waxtaane ci mbooloo suñu boroom dafa bind awliyaa yi yu mel na toolu jardin boo xam ne fleur yu baree ca nekk bu nekk ak couleuram yi day verte te ag ci dayu rafet yi xonk te ag ci dayu rafet yi bëla te ag ci dayu rafet yi weex te ag ci dayu rafet moy si ñeuk gis rafetayam lim sa xol couleur ba mu amé nga japp né ni couleur bu fekk na du non ñi wax légui mu di alhaji mbay ak cheikh lo laala nañ leen tuti ci mom lolu yaakar na ne war na leena doy <laughs> du leen doy sax dara doyu leen ci waaye benn nit seede am na yoo xam ne boo mënuma seede waaye yaakaar naa ne ñi waxtaan ak mag ñi ko daan gis ñëpp jëlee nañ ci moom lu doy a dégg ndax sëriñ liñ koy doyee sëriñ liñ koy doyee moo di ruuguy rot tra yu bàmmeel bis penc ba mu ne wàllu yu bari suñ borom bàyyi na leen ñu fàttee fàggul seen ñooñ sukuraat su metti man suñ borom fàttali na ma ko ba ma fàggu ko taalibu bu taq ci man buñ la yor ci bàmmeel maa lay awu li ñu mën a wax nag bariwul li ñu mën a wax bariwul nee na ni ma demeek ak boroom borom mu mel ne ni bët demee ak daakaane ba bët ak la cay génne loolu da xam ngeen ne daanaka kenn mënul ne benn la waaye sorewuñu nga du ma àgg nag sori am na ñu fi ñëw ñoo xam ne ci lislaam dañoo am ay lënt yu ñu yaakaar bu leen leeralal buñ ko laajee bu ma ko yàlla xamale ñoom it ma laal ci aslëf ate it li ngeen di laajit waxtu bu ngeen laajee laaj ci li ngeen bëgg bu loo xam ne ah, am naa jàpp ndik man ca tontu dinaa ca tontu waaye ngeen ne suñu borom day nëbb na lu bari nëbb na lu bari feeñal tuuti lim feeñal ci tuuti léem na bëti nit ñi fees na seen xol waaye tuuti la ci yàlla ndax tuuti yàlla moo xaj ci jaamam waaye tuuti waaye yàlla moo xaj ci taalibeem yi nag ñu laaj bu fekkee ni am na ay laaj rek yoo xam ne dañ ko ak taraayu bàmmeel taxawaay ba ñu laaj yooyu nag sin metti metti wala nan la demee daal loolu lañ bëggoon mbay nga leeral ñu ko ndax gannaaw moom sukuraat nee na ku ko ragal war nga maa nemmiku ak traayu bàmmeel ak bis pénc ba laaj loolu may leeral sukuraat day tiis na lool li nekk ci kanamu nit kiy dund li nga xam ne dana ca jaar ci ay tiis sukuraat ci jiitu sukuraat nag li muy metti metti ku texewul la ca topp lu gën a metti te lu mujj rek gën a metti bu fekkee nit ki texe ay degré ay daraja ay daraja la am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne seenug texe boo gisee sax ñu wax mbir mu ramm daañu ci dikk lan mooy ramm ak ku mel na nay ramm ak na ramm di deme texe ci boppam mooy lan texe na muy tollu ndax nit ñi seeni wërsëg ci texe na mu ëppante ndax texe am na ñoo xam ne daañu leen limaale ci way texe ñi bala ñuy texe daañu wees sukuraat su metti trayu bàmmeel bu tiis te yàgg dekki suturluwoo dekki suturluwoo mooy nit ñi ni ñuy dekkee mu mel ne boroom am am yeeg way ñàkk ñi ñu waaj jëm ci benn béréb bu ñëpp di daje ñi sol mbubb ak tubéy ak dal ak mbaxana ak lépp lu ñu aajowoo ñi am mbubb rek ak tubéy amuñu dal ñi amuñu mbaxana ñi amuñu tubéy mbubb rek lañ am ñi amuñu menn mbubb tubéy rek lañ am ak sous-vêtement ñi tubéy rek ñii dañoo ngemb ñi xaawu fàllay dong ci seen ndigg moo leen di wër ñii dara du leen wër ba bëy yeeg xar yeeg nag yi topp ci ñoom di leen ree noonu nga xam ne noonu la nit ñi ëpplante ni ñu rawante ci bi ñuy dekki noonu la ñu gën a mettilante ci sukkuraat noonu lañu gën a seddalante ci sukkuraat naka noonu ci traayu bàmmeel ma ko waxee ci dekk gi naka noonu taxawaay bis penc ba sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne dañuy xuus ci seen ñaq bu keroogee ba ba mun agsi ci seen ñaq toll ci seen digg loolu lépp di kéemaani yàlla yoo xam ne bu keroogee daf koy feeñal ndax suñu borom tabaraka wa taala meram ci li ñu mën a tudde mer ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe bis booba lay doon ndax bis booba dana mer ba yonent yi ko gënoon a jege yëpp yi gënoon a xëy ji ci moom yëpp kenn moom ci ñoom du ñemee dem di ko wax nga ram mu jaam ñi ndax taxawaay bi metti na tàngaay bi metti na ak jaaxle gi tàncan tàncaloo bi metti na kenn du ko ñemee boobu mooy bisu mer suñu borom merum suñu borom moom mu nag tabaraka wa ci ki texewul mi ngi koy tàmbalee ci bu roo tàmbalee di génn ba baaraami tànk yi njëkk a commencé sedd mu yéeg yéeg jëm si ci putu nit ki ba ba muy génn diggante boobu wax nañ ko ci waxtaan yu baree baree baree bari te suñu borom tabaraka wa taala dong moo xam li nga xam ne mooy dox liy xew ci diggante boobu ma ne ndax mën na gaawee ci nit ñi ne benn minute yàggee ci borom ne junni at mën na yàgg ci borom ne weer gaawe ci nit ñi ku ñu fetal nga daanu bi ngay daanu rek nga sedd ndax kumpa ndax sunu boroom tabaraka wa taala day dindi jamono moo bindoon jamono li ñuy wax distance maanaam espace ak temps daf ko bindaale ci àdduna bi mu ne ولا ينكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء لسائلين وبل بند ci suuf jamono ak bërëb jamono dañ لالي با دوتو ام am niñ ko lallee woon ci bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di rañaan jóge Makka jaar baytul muqaddas yéeg ci asamaan yi ba dem xasratul quds ci genn guddi wala maa wuyan ni am nañ kumpa ba naan ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diggante Makka ak eh, quds jëmmam la waaye diggante quds ak pays ba nga xamee ne ci la dajeeg suñu borom tabaraka wa taala ruuxam rek a demoon walla gént la te yooyu yëpp dañoo sàggane fàtte maanaam li ñuy wax ko tudde ñu ko waxee ci ci wolof maanaam muy jamono ak béréb yëpp dañ koo dindi dañ koo taxañ amatul mu mel ne noona la jege waaye teewul nag kenn ku ci nekk muy moom muy alburaax muy jibril fa nga war a yem mënatoo ko weesu ndax sa kàttan àggu fu boo ko weesoo lakk da ngay seey ci leer yi noonu la suñu boroom tabaraka wa taala di lallee jamono yi ak ak yàggaay ci ruux guy génn digganteem ak boroom noonu la koy guddale itam bu fekkente ne aji texee di la ruu gi fi muy tàmbalee génn ci yi tànk yi booba muy agsi ci putu nit ki mën na am ci yëgug nit ki junni at na ci gudd nit ki gaawe ne xefiinu bët bu fekkente ne jaam bi jóge na ci loolu ñu tudde sukuraat li tax sukuraat gën a metti ruu ak yaram seen rapport day soppiku waxtaane nañ ko ba tàyyi ci biir dundum nit ki juróomi yoon xam ngeen ne nit ki bi mu nekkee li ñuy la ko arab di wax wax maanaam euh, mu ci biiru ndeyam te formeegul bu baax yëgul ci adduna bi dara ndax roo gi rapport bi mu am ak yaram wi xatewul noonu ba mën a yëg li ko wër du ci xam dara du ci yëg du dégg dara du gis dara xam yëgul xiif yëgul mar xamul dara waxtu xamee ne judd rapport boobu changé mu yëg li ko wër lépp di dégg di gis boko ko mu yek ko bu xiifee wala mu marxam ko muy nelaw rapport bi dellu changer muy lenen du yegati liko wër waye mu ngi dund mu ngi noyyi bu demee ba ci sukurat nak benen rapport moy am digënté ro ak yaram ro ci bopam gannaaw yaram kën du ko mbugal mukk te ci mom mom ro ci bir yaram rek lañ koy mbugalé mo xam yaram bi mu doon dundé ci aduna la wala benen yaram bu mu mëna doon bala koy mbugal rek dugal ko ci yaram yom xiyaam bu fekkente ne itam bi nit ñi dekki bi ñu daataan dekki seen yaram def na soof ba raaf ba da nga xam ne kenn mënatul a xam fu ne woon bu ruu ñëwee euh, philosophie li leen jaaxal ba ñu dem ba weddi xashrul ajisaadi maanaam dundaat loolu dafay gudd ndax mën naa am waxtaan naa ko ci gërëb yu bari waaye bi nga xamee ne rapport ruu ak yaram mu ngi soppiku nag soppiku goo xam ne demewul na nam daan soppikoo euh, benn yoon bu gaaw ànd ak nit ki du ko yëg léegi bu fekkente ne rapport baa ngi ñëw diggante ruu gi nga xam ne day tàggoog yaram wi te dootu dellu si ba yemal xiyaam ak yaram bi nga xam ne day tëddi ca bàmmeel ba xam ne nit ki li mu gënoon a bëgg lépp mun ko fi bàyyi mu mel ne nit koo xam ne béréb bu mu miin mësul a xam benn béréb ci àdduna lu dul bi ñu bëgg ko fee jëlee di ko yóbbu fu mu xamul foo xam ne ay naqar rek fa nekk ak i tiis te mu umpalee foofa naqar benn ngoog ñaareelu naqar yi mu di ñi mu xamoon ak ñi mu yërëmoon ak ñi mu daan dimbali ñi ko daan dimbali lépp mu di leen fi bàyyi ruu gi bëgg a tàggu ñooñu ñëpp moo ci boppam talatul dara xamul loolu waaye ruu gi moom gannaaw foo jaamu woon yàlla ruu gi dana ko seede te mu ngi yëg bi ngay jaamu mi ngi koy xam te day marqué ci moom buy génn itam àdduna béréb yi nga xam ne miinoon na ko yëpp day dem di leen tàggu ta tàggu googu mu leen di tàggu day doon ci euh, aji dee ji métit woo xam ne kenn xamul mu toll karaw bu doon ci yaram ak peppu wu ci yaram ak peppu deret ak pepp yàpp bu doon ci yaramam day yëg métit woo xam ne métit woowa dong bu newoon ci nit ki danay yëg loo xam ne mosu koo yëg bañ ko bindee ba boobu roogi nag buy dañ fu muy weesu foofa dana yëg métit wu ëpp fi mu jëm ba ba muy agsi waxtu woo xamee ne agsi ne fi koy roccee nag mu génn ndax dégg ngeen ñuy nettali ba tàyyi malaayika bi nga xam ne bu ñuy rocci ruu gi ci ku texe wala ku texe di melow ñuy dikkaale ak nañ koy bise wax nañ ci introduction masalikul jinaan bi métitu de noonu sidna Omar bi mu koy laaj abul axbaar ak xadis yi nga xam ne rot na ci yépp waa ji nga xam ne texe na yooyu yëpp day doon lu neex ci moom mel ni ki nga xam ne dafa gëmmen dëgg dëgg gëj nelaw ñu ne nañ ko bàyyi mu nelaw foofu mu nekkee diggante nelaw ak ak yeewu gi noonu muy neex ci moom bëgg a nelaw noonu mu bëggee nelaw bëgg ko ko bàyyi mu nelaw noonu lay bëggee ruu gi génn adduna ji nga xam ne mooy àdduna yi tiis ji ndax ruu gi day jànloog li ci kanamam lépp bu fekkee ne aji texe la day jànloog la ca kanamam lépp ci texe te dañ koy nëbb lépp luy met bàmmeel bi bu ko ruu gi xool day mel ne kër yi gën a rafet ci àdduna mu yàkkam cee dem nit ki noonu bu fekkee ne aji texe la noonu lay yëgee loolu mbëg moomu muy àndal ci texe ga gën a mat noonu lay demee mu li tax ruu gi fi nga xamee ne nit ki julli woon na fi béréb yi mu julli woon yëpp bu fekkee ne ko jox julli xaqam la béréb yooyu lay fàttaliku te bànneex bi nga xam ne mooy jóge ci rukkoo yi mu daan rukkoo ak sujoot yi mu daan sujoot mooy yokk xéewal gi fi nga xam ne nag texewul yooyu yëpp ay musiba lay walbatiku doon ci moom fi nga xam nag mooy sabab texe gi texe ci mbindeef moo xam ne dafa dund ci àdduna ba ci génne ak texeem ni ma waxee ne mu ngi tàmbalee ci bu ñu tàmbalee rocci suñ borom sàkk na jëmm yoo xam ne ndax suñu borom ba mu bindee jaam yi dafa leen a wóotale ne penkook sowwu ku nekk xam na ne dañu ne jullit ñi gannaaw Muhammad sa alayhi wa sallam Aboubacar moo ci gën gannaawam Omar gannaawam Ousmane gannaawam Ali mu ne day suñ borom ci li muy defee lu ko soob yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan wax. ne inni la ajidu nafas rahmaani min jaanibil yaman mel na ci misaal ci wolof bu ñu ko doon wax ne mel na suñu borom xetam ak may xeeñ ci wet gi fekk booba ka fa nekkoon bokkul sax ci saaba yi mu di uwaysul xaran yi sa alayhi wa waxoon saaba yi ni leen ku ko ci gis na ko ñaan loo ndax lu mu ñaan suñu borom dana ko nangu mbindeef yooyu nga xam ne lu ñu ñaan suñu borom dana ko nangu day am ba bañu ba bañuy ëpp bunt tuub bis bu ñu ubbee nag bunti tuub la dootul am waaye feek ñu ngi ub bunti yooyu day am mooy ñi mbindeef yi nga xam ne dañuy sabab texe ndax sidna Omar ak sidna Alioune ñoo gis Uwaysul Qarani bi ñu ko gisee di ko ñaanloo mu ne leen ku jóge ci Muhammad ibnu Abdullahi di ñaanloo kenn te mu ne leen bañ ko ne yonent bi kat moo wax ne ku la gis na la ñaan ndax loo ñaan yàlla def ko mu ne leen waaw waaye Muhammad day gisu leen ci moom lu dul takk ndooram ñu ne ko ah ba Abubakar sax mu leen ba Abubakar sax takk ndooram doo nga la gis waxtaan leen ko ay yooni yooni yoon ñu ne ko waaw yow nag ndax gis nga alxaqiqatul muhammadiya moo ne suñu borom muril na ma juróom-ñaar fukki ki kiiraay des benn bu ma si jege woon lakk ni karaw di lakk ci safara gaañoo ñi nag nga xam ne duñu ay yonent duñu ay shuhada te yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne borom bind na gaañoo xam ne duñu ay yonent duñu ay shahid te yonent yi ak shahid yi dañu leen di ñee yowmal xiyaam ñooñu am na gaañi ca bokk te kumpala ña ca bokk duñ ko wax sëñ ñu ko wax jaam ñooñu mën nañoo faggul ab jullit ak texe goo xam ne gu dappetoo lay doon gaay yàlla yi ñi ko ci wax ñi leen xam xam ne lu ñuy wax dëgg la nangu nañ ko ñi leen xamul bu ñu amee maandu ne dara wóoruma ci bu ñu amulug maandu ne amul mënu la nekk waaye weddi moom ngeen ni ko Sidi Hadji Malick bi mu waxee ne weddi lu gaaw la ci alak nit weddi ak jot li ko la ci luy alak nit ndax kenn man lam yoxit bi jumlati euh, sharia inkaar wala lim halakin sharia ndax loolu képp koo xam ne loo sharia lépp ba xam ko waruloo weddi te sharia moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam dong te ante jaam bu nekk ak boroomam mel ni mbindeef xamu ko lu dul yàlla ak moom la ko ca xamal te moom sax du xam lépp ndax da nga nit koo xam ne suñu borom defal ne ko fatxu mu jànloog adduna bépp bépp bépp ak li ci nekk ak lëndëm lëndëm yeeg roq yëpp mu mel ne pepp dugub boo tekki sa tënk leere noonu ci moom nga gis koo xam ne suñu borom xamalu ko dara dara dara dara gént sax du ko def te ëpp daraja kooka yomal xiyaam fa suñu borom tabaraka wa taala xam ne kon suñu borom ay kumpaam dafa bari képp kuy weddi nag umpale nga yàlla umpale goo xam ne dara mënu koo weesu ndax bu fekkente wàll yi dafa wax ne yonte yàlla Ibrahima bi nga xam ne kat gannaaw Muhammad moo gën ci mbindeef yi bañ ko sànnee ca kàmbuk safara ga sama ñaan ak moo tax safara wa fay koo xam ne faqih rek la du ko nangu mukk ndax baatin la xëy na du ko gis fenn waaye ka ko wax moom xam na ko lu leer ki nga xam ne nag nee na mën naa fàggul ab taalibeem metitu sukuraat te suñu borom may na ko ko te fàggu na ko fàggul na ko lu rëy rëy bu faboon ndeyam ak baayam ak boppam jaay ko jox ko it du jot mukk xàqam nee ñu sëriñ bu mat sëriñ dana nemmi ko xolu taalibeem ci xefiinu bët bu nekk nangami yoon buñ koy dugal ci bàmmeel moom may ànd te am na sëriñ soo xam ne mën nañoo tontu lay munkar ak nakiir taalibe bi toog di ko seetaan kon nag sëriñ mënu la jot mukk taalibe mënu la jot mukk sëriñ calam ko mënal yooyu yëpp bunti yërmande suñu borom yi nga xam ne du jeex mukk te kenn xam nu mu toll Cheikh Abu Yusuf Bistami radiyallahu anhu mas na ne borom di kaf moom ndax li ñuy wax albast wal qabd ay maqaama la ci maqaamay góor yàlla ñi albast boo ca tolloo suñu borom daf lay may nga ñeme am xel mu dal ba di wax ak moom mel ne kuy wax ak nit borom dal di wax bi ci Abu Yusuf melowoowu ne ko yow sama jaam bu bon mi bu ma waxoon nit ñi say bon bon kon kenn dootu la nuyu mu ne ko yow it séen ma di bari ji bu ma ko waxoon nit ñi kenn dootu la jaamu mu ne ko ah bu ko wax de mu ne ko waaw yow it bul wax yërmande yàlla jooju tabaraka wa nga xam ne àjjana la jëmale lépp indi ci tuuti ci àdduna jox na ci ay jaam yoo xam ne wa seete xuutul qulubi abi talibin al makki mu ne inna lillahi ibadan law saaluhu an laa yuqima saata lam yuqimha suñu borom am na jaam yoo xam ne bu leen nee buñ ko ne woon bu saa taxaw mukk yomal xiyaam dana fo lu doy doy waar na ak ñoo xam ne nee na buñ ko ne woon baalal iblis mu baal ko abu talib lin makki de moo ko wax seet xóotul xulóob gis ko ci kon nag weddi dara ñàkk xam la ndax weddi mooy li suñu borom def lépp man xam naa ko te lii nga wax nit اقرأ باسم ربك الذي خلق Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Read in the name of thy Lord who created. خلق الإنسان من علق Qui a créé l'homme d'une adhérence. Created man from a clot. اقرأ وربك الأكرم Lis ton Seigneur est le très noble. Read, and thy Lord is the most bounteous. الذي علم بالقلم. Qui a enseigné par la plume le calame. Who teacheth by the pen. علم الإنسان ما لم يعلم. A enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Teacheth man that which he knew not.